ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi geew bi dox ci diggante serpent bu Cambérène ak fils de Zallo ndaysaan papa jaaga na la toogatul taxawatul takkusaan bu ne Zallo am na ko bis bu rëy bu ne Zallo am na ko sama xel dem na ci Zallo Mohamed Ali ndaysaan mu nekkoon combat boo xamante ni combat bu rëy la Zallo zongale ko teg ko ci dënn bi ànd ak moom ndaysaan Ousseyn arbi bi sifle na Serpent moom nga jàkkaarloo fils de Zallo moom nga moom moo la woon ginnaaw Ousseyn. Baye ji nuyu naa la ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi combat bi gëm naa ne combat bu gaaw lay nekk waaw waaw Serpent mi ma gis parewul sax pour diiral combat bi waaye euh, fils de Zallo mbokk yi moo ngi taxaw ak di ko déglu di xaar la laan ñoom ñaa ay ndaanaan lañu su ma juum su ma juumul kii di Serpent bi fi jógee oh doon na ko mu daanu. mu daanu. mu ne du yàgg. door na ko mënut a yàgg mënul yàgg ndax serpent mayul temps sax ki nga xam te mooy Fils de Zalo ku ne ku dëkk fee bëggoon a jëlee làmb du noonu soo ñëwee da ngay lii sa adversaire xool lan la andi nga mën a jëflante ak moom serpent tey jaay na combat bi na mu bëree tegu ko ci yoon ni mu bëree parce xeex bi garde bi amul kenn amul fa la nekk da koo doon dóoraat ko rek mu daanu bàyyi jiili làmb ji jeex mbokk yi gis ngeen Fils de Zalo door na serpent mu daanu Zalo ñu noonu ci Serpent lamb nii la jugal góorgóorluwaat àndaat ak say mbok àndaat ak say njegeñaali defet bi moo lay def mbër mbër saa yu bëree am daanu am gàcce ndaysaan lamba ngi nii lamba ngi nii lamba ngi nii Serpent ngi noonu ñu lëng ko muy dem Adama ndaysaan Zallo ñëw na ci moom ndaysaan akolaat na ko wax na ak moom ndaysaan làmba ngi waay